وارحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال nit simple il faut que ñu dugg ci parce que tamit wax dëgg yàlla dañ ciy compétir. li ñu wax rek yow ci baax yow lañ njëkk a fierté ci. ndax yéen ba nga jëlee maire. gars yi kontaan. waaw dëgg ndeysaan géejuwaay li ma fa am ci ay xarit est-ce que am naa woo Malika dama fa am ay xarit de. waaw yaakaar naa ko nag. yaakaar naa ko quoi vraiment. yàlla xam na loolu am naa fa ay ay xarit am naa fa sumay nit yu baax a baax a baax a baax di profité ci occasion bi di leen nuyu au passage suma xarit nekk géejawaay yëpp suma am yi xam nañ ma xam naa leen ñu ngi jëflante ñu ngi seq teraanga maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax. Zé mhm. yaa ngi kii yaa ngi tooñ de. làmb dafa war di boole waaye warul di xaajale. Mm. comprendre nga boo ñëwee bëgg a jàpp ni. man mi nga xam ne Malika laa dëkk dama war a dund ak ranking waa géejawaay damay sonn wala ma war a dund ak géejawaay waa ranking waa waa waa feneen ak feneen day metti ñun fu ne lañ nit di bëggee loolu bu buñ ko doon dund xëy na mën na demee neneen sama adversaire dañ daan bokk fu ñuy entraînement waaye damay entraîné fii muy entraîné fee. yàlla xam na loolu. noo xam nañ ni dañuy daje mu ngi ci biir préparation bi maa ngi ci biir préparation bi. yàlla xam na loolu billaay wallaay. moo loolu day dara. man bu ko neexoon nii ci làmb ji nii may invité ko suma kër ñu toog. bu ko neexee na ma invité gàllem amuma problème boobu noonu. da non maa bëggoon làmb ji doon la moo ndeysaan lamb jee waroon doon la 21 mars rek. moo tax corona non am na ci kum sauvé ak leer. ah yow nag. non man préparé wu ma damaa pare man du ma mbër moo xam ne dañuy am combat ñu lay patam patamee di la rey di la forcer bëgg nga ñëw vite fait. Mm-hmm. man dama ciy nekk yàlla xam na loolu saison bu tëjee aw ma saison bu tëj. saison bu tëjee damay liggéey saison bu tijjee damay liggéey làmb bu jotee damay tax suma ngemb dem bëre man du ma mbëru benn combat ci at bi wala ñaar damay génne di compétir yi. kon man toog waruma. Fils de fan lay compétir xanaa ci xale yi. xale. ah day compétir waaw yaa fàtt wax nga dëgg de yor na soxna day compétir. Eh, waaw mu compétir de te nekkee ci biir làmb ji. day entraîner compétir na ba def résultat. indi champion bu waaw bu leer moom compétir na ba def résultat macha allah maa ngi koy nuyu di nuyu tout tànkam ndax vainqueur la waa moom compétir na ba def résultat macha allah. waaw ah, yow it nag man tollu ma fu may jigéen suma morom wala di ko neexal man dama am sama morom bu may neexal. ëpp ñu ma doole gënuñu maa nekk xaalis gënuñu maa nekk situation bu baax kon man lan laay neexalee suma moroom tamit mais dama bëgg ñu waxtaanee ko xam nga souvent gars yi des fois day am yoo xam ne dañ koy dund ba muy indi yeneen ak yeneen souvent gars yi dañuy yóbbee seen supporters yi ay xeex wala ay dund ranking yoo xamante ne lu ne mën na cee xew te amaana mën naa ñàkk ndax làmb dafa toll ci war a defar ak fi situation làmb toll ñu bëri essant yi ñu ngi daw làmb ndax lan yenn situation yu ñu ciy gis non mbër dañoo war a bëre bu ñu waree bëre lu ñu warloo nañ ko def bu jeexee jeex na quoi man du sama noon du ma benn waaw waxante nañ mais loolu mooy jaay suñu làmb du dara lu dul ñaari xale yu bokk man mosuma koo boole ci suma yoon mais moom. dafa yàgg a pour bëgg a bëreeg man. Ah, Fils de Balla moo rêvé bëreeg yow. waaw yàlla xam na loolu man Fils sa baala ba ma dalee tëkk du tey de. Mhm. yàgg na man ñëw naa esaat nii sax di bàkku bàyyi ma ko xel mu ñëw tëkku ma te jour boobu noonu baytin laa doon tëkku. Mhm. moom mu tëkku ma. dafa def preuve na. waaw def moo tax ñu jël ko amaana bu fi deful woon dara duñ ko jël de. Mhm. champion la dafa def dara mais moom moo bëggoon bëreek man waaw mais ñu ngi ci yàlla na yàlla dolli sutura. suñu combat di confirmé. kon ñu naan ay général instant bi yaram noppalu la yor day noppalu pata ah, waaw waaye yow it ñun de mooy loolu noonu suñu neexee ndax wax dëgg fa yàlla suñu xel dal na ñu ngi ci ay situation yu baax dañuy lekk lu baax. di tëdd fu nooy di dal jàmm ñu kenn en même temps noo femme noo film y a pas de maladie léegi loolu noonu bu dajee ci yow boo boo yorul benn état duñu wax ak yow ah waaw hmm. ngi nekk ci suma bopp nekkuma ci dara lu dul dem entraînement ñëw toog jàmm hmm. ak sama mboq taalibe yi Baay Faal yi hmm. teg café Touba yi ñu waxtaane ko loolu faay boo nekkul ci dara dañoo war a wax ak yow waaw. Général te su ma waxee mbiru VIP yi Général ci kan gis boppam. Balla Gaye moom man wax naa ko waxati ko moom xëy na lu suñ borom di def la. waaw ndax ñii ma toogal nii suma sama yi mën nañ maa seede fii Balla Gaye am na fi combat bi yoo xam ne du ko bëree daan may si bile ba am ñoom dañoo ñëw di ma menacer naan ma yow mbër nga ba pare di def lii ci koñ bi mais man leen loolu yàqu ci dara xëy na ñun dañ doon gis suñu bopp. bala mbam yu mujj yi ba mu arrêté tent man ci laa arrêté tent ñi nga xamante ne xam nañ suma combat yi njëkk yi dama ko daan tent safal ko ba mu saf mais loolu du dara nit mën nay def lu baax xam nga lu baax la ñuy gis di ko sa sagam sax nit ñaa ngi gis lu bon di ko roy kon ñu nit war nañoo mën a gis lu baax di ko roy Balla Gaye kuy mbër ñaan nga yàlla def li mu def wala nga def lu ko raw tamit mm-hmm. hmm? waaw tey euh, tey waaw ci làmb dama koy jël waaw. ndax ci. làmp ci sañ-sañam ci làmb. Mhm. waaw ndax moom du tardel amateur du yàggal amateur fenn. Mhm. yaa may dégg moom daa am fula ci làmp te bu ñëwee da koy def mu jeex. làmbam lu metti metti metti metti metti day ñëw def fu la mu jeex loolu nag dafa mat a roy ndax am na ci amateur yoo xamante ne dañuy dagg ay biir yu seer ñëw ba ci làmb am ay làmb yoo xamante ne suñu ñibbi seen xol du neex te ñaanuma yàlla bokk ci mbër yooyu bëgg naa lépp lu may lekk ci làmb mu leew su ma duggee ci làmb combat bu mu mënti doon adversaire bu mu mënti am joxe ba ñëpp xam ni général joxe na su ma ñibbee sama kër kenn du ma woo naan ma seet li nga def dañ laa am mere yow làmb ji yaa ko jaay wala nangam ak nangam yooyu ñaan ma ko yàlla waaw. non làmb instant bi nii dafa xaw a sooxe. ndax tamit sponsor yi amuñu ci làmb ji. promoteurs yi demeetul noonu. ñi fi nekkoon doon tëgg làmb yu mag yi léegi mooy loolu noonu instant bi nii yenn promoteurs yi ñoo fi nekk rek di jaayante te ku ne xam na ni réew mi dafa metti mais li ci li li li gën a affaire yi rek mooy ñi nga xam ne dañoo teg bët làmb ko am na ñoo xam dañuy toog seen kër naan noo mbër warul fayeeku cinquante million bar warul fayeeku cent million réew mi fi mu toll ban ban nit mooy fayeeku ban ban fonction mooy ban nan laa mën a waxee sax kan moo yor sax sa kii di fayeeku ay cent millions ak nangam des fois dañuy toog di ci détail mais du loolu gis nga mbër buñ la fayee cent million bu doon amoo say nit yu baax yuy ñëw di ci jàpp doo desee dara mbër mën nga am combat bu jëm six mois début combat ba ba fin da génne say sax di nekk ci sa bopp boole ko sa dund ak yaakaar ci yow. kon làmb dafa metti nañ woo sponsor yi am na ñoo xam ne bu ñu ko imposé woon suba suba suba sponsor yi ñëw ci làmb ji sagam sax yeneen sport yi nga xamante ne kenn bàyyiwul leen xel ñu ngi koy jéem a valoriser di ci woo seen i sponsor gars yi di ci dugal seen loxo waxatuma la ak làmb làmb facteur de développement la ndax tey jii nii ñun stress yi ñuy dégager bëri na yàlla xam na ni xam nga ni 100 mètres am na ñu fa nekk ñoo xamante ne dañoo am seen i télé. campénal am na ñu fi nekk ñoo xam ne dañoo am seen ñooñu amul programme làmb bu leen di rate da ngay bëre ba pare sax di jot ay appel ñu lay xamal ni ñun ñu ngi lay seetaan ñu ngi lay suivre te ñooñu fi ñu nekk amaana bu dul woon làmb seen xel mën na nekk ci leneen ak leneen ñu ngi ñuy seetaan di dégager ci stress moodu moodu yi nekk Europe amul ku ci seetaan fii Sénégal beneen émission wala di dund leneen lu dul làmb mbër yi xam nañ li may wax man mii xam naa li may wax ñu fa nekk ñëpp ku ci wàcc programme làmb rek ngay xool ndax ñun lu ñu def ci làmb balaa moo nangam ñu woo ñu seetaan naa sa lii seetaan naa sa lii kon tey jii nii li làmb di defar dafa bari tey bëri na ñoo xamante ne seen xel a ngi woon ci leneen ak leneen tey làmb tax na ñu bàyyi ko génnee ci sa xel ndax mbër ci koñ soo saa boo xëyee yaa ngi xool nooy rafetalee sa dëkkandoo yaa ngi xool nu la nit ñi gën a bëggee yaa ngi xool nooy sensibiliser nit ñi ba nit ñi am ci yow yéene kon kooku mënoo dund leneen ak leneen kon mën jox lim moom comprendre nga mbër war nañ ko jox état bi bu ko neexoon suba suba suba suba suba suba gars yi dugal ci seen loxo di profité waale ci occasion bi di ñaanal suñu papa Ligue Nicolas ndax ku amoon njëriñ ci làmb ji la ndax des fois daan nga gis mu fay mbër yenn kase yi gars yi naan du yoon waru koo def kooku dafa xam gëddu mbër kooku dafa xam àqu mbër moo tax lu def ci mbër moom du ko gis. ndax ku ne gis na Balla Gaye Modou Lo fi mu tolloon ay jamono seen première combat bu muy met dafa ñëw décanté xaalis bu bari def ko te ba mu paree rëccu ko nee na sax pare na pour delloo leen loolay àdduna mais bul nekk ci dara ba pare di ci am teraanga wala ba mu taal la nga toogaat sa ruq di xas loolu noonu bari nañ non damaa xam ni bëri na ñoo xamante ne seen teraanga ci làmb la jaar bëri na ñoo xam ne seen tur ci làmb la jaar te du ñàq des fois nga gis ci ñoo xamante ne da leen di wax ay waxu làmb ñuy toog di kalaas làmb làmb li mu defar bëri na de nañ ci bàyyi xel nag gis nga football bi nga xamante ne dañ koo jéggaane amul lum dul am te dégg ku ci wax. làmb tey bu amoon sa xuloo ba nit ñi xaw a jaxasoo nga gis ñu commencé làmb ji nàngam làmb ji nàngam kon la la sagam yow li nga bokk muy sa yëf di sa culture nga mën a classe mën koo taxaw bëgg koo yàq asamaan li nga xam ne da nga koo jéggaane yow mi nga xam ne sax yaa sa kër pour man. nga yor say njaboot ki nga jur moom nga war a gën a fonk te ki nga xamante ne moom dafa jóge ci àll ba ñëw bu dee dëgg la ndax li nga jur sa deret la làmb noonu la mel ci Sénégalais ñu ñun jéggaaneewuñu ko fenn dañ koo moom suñu yëf la. comprendre nga kon dañ ko war a mën a gën a valoriser teekoog suñu fukki loxo ndax booy seetaan sport yeneen sport Europe yi muy ci coté làmb ak yooyu xam nga sax ñoom seen box yi duñ taq duñ def loxo neen quoi ñu ngi taq ay yooyu noonu mais ñi ko fay suivre dañuy am teraanga yu jeex. kon tey jii mbër fii lu mu fi am rek war na tamit na gaa joxaat làmb ak am quoi vraiment. message bi for na am na solo. général tey leen ko. waaw tey de moom xam nga damay waaw damay damay def suñu café Touba rek waaw soogandoog Baye Fall yi barkeelu rek yaa ma gën a xam def ñoom mburoog croissance affaire yooyu noonu ndogu du bari nag tuuti tuuti pare naan lu xaw a sedd tuuti toog tuuti affaire xaw a des nga juwal entrenement xool noo ko rek réglé quoi waaw noonu lañ koy dundee. laay lay la la daa fan yee dama naan ko temps dama war a ut sax xale bu may bëggantal noonu mu ne ma boo ko defee. Mm-hmm. non tegal ma lu bari doole moo ci génneewaat sama xel quoi man mooy loolu noonu nee na ma bàyyi ba ci kanam. Hmm. waaw kon amoo koy bëggante. instant bi moom vide la maa ngi nii waaw. mais macha allah. Hmm. mais dara dañ ñaan yàlla rek léegi bàyyi ñu fi yàlla lafal ñu cat. Hmm. amaana ku ci nga xamante ni su ma wërsëg la. dinaa ci jot ku ma yàlla war a booleel amaana dinañ nekk quoi. mais maman bi moom mooy loolu noonu waaw. Fils de di ko ñaanal suma bopp jàmm di profité ci occasion bi ci koor bi di ko baalu àq di baalu famem àq di baalu ay soppem àq ah, di baalu nag ñi nga xamante ne ñooy axlu lu làmb di baalu képp kuy suma soppe képp ki nga xamante ne mës naa jëflante ak yow muy lu neex wala lu naqari maa ngi lay tàllal loxo di la baalu àq tey baal ñëpp àq baal naa ñëpp àq ku ma tooñ ku nga xamante ne def na ma lu bon jéggal naa ko man ku ma tooñ te yëguma ko ndax souvent mun a ñàkk mën ngaa def nit loo yëgul mën ngaa tooñ nit te doo ci bàyyi xel mën nga wax nit sa wax nga wax sax laal nit te doo doo ko yëg maa ngi tàllalaat sama loxo képp koo xam ne daal def naa lu ma yëgul maa ngi lay jégaluwaat di la baaluwaat ak di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg li nga xamante ne moo lëmbee àdduna yàlla na wane ginnaaw ba nit ñi nekkaat ci seen bopp nekkaat ci seen jàmm quoi te nuyu nag su ma xarit yi may àndal vraiment quoi aw ma seen fay comme ku ci mel ni ñoom jaal suma baay faal bi moom sama ami d'enfance la dañoo yorondoo su may làmb mbapat lu doon la ci daan daj quoi vraiment maa ngi koy sant bu baax di nuyu ñoom papa dama am benn booy boo xam ne français la taar la papa. Mm. mais su ma amee combat moom lay gën a yërëm day stress su xoolee sax sama adversaire def benn interview moom aussi dinga li mu wax de mu nelaw ma mën ko booy yow ñoo fowandoo yorandoo màggandoo boo ma xamul boobu ba léegi kañ nga may xam. Mm-hmm. mais xam naa ni cofeel ba ëpp moo ko jàpp ko maa ngi koy nuyoo passage di nuyu dev général bi ah ñoom Mamoussa Tafa Soumaré Seri Sona ñoom Cheikh Tidiane Mané xam nga Ahmed Diop borom conva mbuto yi ak waa Caara yi suma suma gars yi nekk Europe maa ngi leen di bëggee ñoom Zungale xam nga ñoom Oldou. ñoom maam Cheikh Anta xama ñoom laat laat fay laat ndooy laay fay laat moom day sonn ci man su ma mee combat su dee teg dégg na sama combat rek moom li muy njëkk a def mooy ria <laughs> comprendre nga kooku aw ma fayam quoi laat vraiment quoi mais nag fàttewul démb quoi ndax moom dañ ko doon dundandoo di àndandoo mbapat yàlla xam na loolu lu bëri mun naa ne ñoo ko doon ànd di defandoo di àndandoo entraînement mooy loolu noonu mais moment bii nii. seetaanu ma daal vraiment mu ngi jàpp ci man bu baax a baax a baax a baax a baax di wax per Kamou suma père boobu noonu maa ngi koy nuyu Laye Diop Laye Diop moom amuñu fayam quoi mention spéciale Malika fii lu nit di def sa xel du dem lu du dem ci kudul Laye Diop wallahi alazim sa xel ci loo looy loo war a def rek yow sa xel du dem ci kudul dul Laye Diop quoi kon Laye Diop ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàggal sa taxawaay teraanga yi ngay def ñun gis nañ ko loo mun ren yàlla nga mun déwén lu ko ëpp quoi zo zo suñu doomu nday boroom ñàgg boroom ñàkk rob moom it day jàpp ci sumay bagage quoi xam nga ñi nga xamante ne ñoo may jàppale ku ci mel nii nu mu tuddati ku ci mel ni daal ñoom perkamu xam xama ak gars yi nekk suma ginnaaw. ñëpp bëgg naa leen jox leen seen wàccuwaay xëy na koor gee ma xaw a jàpp ba gars yi nii mooy loolu dool mais sant naa ñëpp. Mm. gërëm naa ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax yàlla na jàmm yàgg yàlla jàmm yàgg lu waaye am lu dul jàmm jàmm ko gën jàmm gën or gën jamaa gën lu dul jàmm kon yàlla na ñëpp am jàmm. waaw loolu seen mbërëg diine bi ah waaw naaj ah, sama moom naaj quoi <laughs> gën a xam ndax nit ki moom bu fekkee jullit nga mënoo dem sa diine tamit. bu dee dëgg la mais émission bi moom macha allah am na solo mbër ak diine bi neex na laaj yi débordé wul xam nga yow moom xam naa ne li muy koor gi la moo tax nga xaw kii ni bul woon koor di nga gën a gën a yëngal mais li la ñuy wax koor daal am na am na solo am na njëriñ macha allah ndax xaw na laa xaw naa wàññi sa aliir quoi vraiment kon yàlla na jàmm yàgg. <laughs> Euh, di ko bëggee waat nag bu baax a baax. mu nekk koo xamante nii kenn la suñu moom mu nekk ku baax koo xamante ni wax dëgg yàlla ba mu jàppee ba tey bàyyiwul wax dëgg yàlla suma frère la suma xarit la moom xam na ak circonstance yi nga xam ne yàgg na yàgg na boobu lii sax amul. moom na bu baax li mu koy wax. mu nekk ku baax koo xam xamante ni toujours ni ma ko xamee woon noonu laa ko xamee di ko ñaanal rek jàmm ak salaam di ko wax moo xam ne bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad. waaw di mais tey émission bi daa am koo xamante ni dama ko may mu nekk suma mag nekk suma l muy Talla Diop ah yaa ngi may <laughs> <laughs> Fatma Dia nag yaa ngi waaxu de surtout la jor boobu kooko mën ci ñun Fatma balaa <laughs> balaa ngay pare non non yow yow ndekete dag maa liggéey de nag maa laal balaa ngaa yegsi de yow foo dem ba jaar ci taala nii non Baye Bass taala lu mam jàmm doyal Fatma dama lay dog de Talla Diop vraiment soo déggee su may biir wax ah, mafia taala Diop maanaam li ko undu dafa bari ñëw rek ànd ak ñun di ñu féewale noonu dafa ànd ak ñun xool nu mu gën a rafetee di ko defee ba pare boole ko di jël xaalisam bu bëri di ko def ci ñun vraiment quoi taala borom it teraanga la ku mën teraanga la ndax ki lay defal moom te du bëgg kenn xam ko yombul fi réew mi toll quoi vraiment kon taala Diop yàlla na sa jàmm yàgg mook frère mbay jàlloo di nuyu waa garage Baye Ndiassé bi yëpp garage garage ba yëpp daal sant naa gaa yëpp di bëggee ñëpp quoi sama ganaa daa moom mention spéciale nee naa sax du ma ko gërëmati ndax mën naa ni lu bëri moo ko def ci man yàlla xam na loolu ndax yar dafa xaw a garaaw quoi ndax ki la yar saa ne rek day bëgg jikkoom nga yor ko ndax bañkat la saa su ne moomay imposé gëmal sa bopp fonkal sa bopp bul dugg si naka su dul noonu Fatma Dia li gars di dund mën nañ ko wala bëgg nañ ko dund mais dañu ko mayul temps buñ ko dundee te vraiment moom kooku da cee joué lu rôle bu da cee lu rëy fu ma nekk nee naa la ba 22h xam nga ni man mooy loolu noonu su ma neexee ma dox def lu ma neex mais fu ma nekk ba 22 ma xool ci lu ma nekk. kon kooku noonu am na lum la bëggal quoi kon daa moom ak ay soxnaam ak su ma nga xamante ne ñoom laa nekkal ci kër gi ndax vraiment fu ma xiifee ñu génnee lekk jox ma ñoom nday laay ak alima ñoom mère nday faatu ñoom ma Sall su ma mag bu jigéen ya di ko ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm moom it aw ma fayam daf maa bëgg ba foo ko natt weesu na ko ajaa su ma raq su may combat da ciy vraiment ay coono yu ne la ciy daj quoi nuyu naa ko moom da ci jàpp booleeg lim am ak lim amul xalaatam yu rafet ak lépp di ko partagé ak man quoi kon ajaa moom yàlla na jàmmam yàgg suma gaa yi ñu may àndal man aw ma ñu dul ñoom nu ma mel ñoom la. yàlla xam na loolu bu ma doon génne ci kër gi fii man kase may génn dina xaw a metti mais ñoom xooluñu dara ci man gisuñu ma général nangam wala nangam damay chaque jour damay bëgg di ko nit ñi muy leer ci ñoom ñu xam ni su may gars yi may àndal aw ma seen fay yàlla xam na loolu fu ma dem ci mbapat ñooy ànd ak man. comme comme comme Fatma Diagne li ma la def rek fel la loolu lu munta ñàkk la ko quoi ndax ku ci nekk ñi nga xam ne ñoo nekk sa ginnaaw di la dooleel nga am man maanaam ñi ma génération ndool samay xarit yu ma foowandool boo gisee da naan ma ñii ay booy général lañ te ñoom laa ndool mais ñoom xooluñu lu ma am ak lu ma amul saa su ne dañuy yëkkati seen doole di ci def mooy loolu noonu su ma amee combat <laughs> jaal ma koy yërëm pa moom it day bàyyi liggéeyam Cheikh Tidiane moom day dem ba nit ñi sax dañ koy meree ndax day bàyyi liggéeyam yëpp ànd ak man di ci jàpp kon gars yi aw ma seen fay xam nga njaga càndu moom it waay la daf may jàppale sant naa ko Euh, mbiidu borom caaray borom yëmbal di profité ci occasion bi di wër nuyu waa jaami réew waa faar ba waa yëmbal gi yëpp daal maa leen di bëggee ndax da cee am ñoo xamante ne su may soppe lañ su may ganaa lañ mm-hmm. te foofu dama fa am cër dama fa am wàll ndax su ma waajur bu góor ñu ngi ko denc Thierno Ndiaye yëmbal faar ba comprendre nga te ñooñu maanaam mënuma def ay yu bëri duma leen jàllale quoi maa leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax ak gaa yi nga xamante ne ñoom Modou Kane suma waa ji borom Italie moom day xool bagage fu mu gën a rafetee mu jënd jox ma ko Zoungale moom nee naa leen kooku yàlla na jàmmam yàgg quoi amul lu ma dul defal yàlla na jàmmam yàgg sant naa ñëpp di jégaluwaat ñëpp di baaluwaat àq ñëpp quoi vraiment. l' émission tire à sa fin ko bëgg waat baax a baax moom général bu Malika nekk suma mag suma xarit ah, mën tooñ léegi dafa bëgg a bokk ci. groupe boobu noonu di ko béggewaat bu baax a baax di ko ñaanal jàmm moom yàlla na yàgg parce que nee naa ñii su ma soxlaa si ñoom dama leen woo dama lay wax rek ñu ne ma acca buñ tàggu ndax yow ci kër gi nga bokk di ko si ñaanal nag bu baax a baax naan la cër bu ma jox rek lu raw loolu laa ko jox ndax suma xarit la daf may conseiller di ma suivre bu baax a baax a baax amaana maa ngi moom kon li ma wax léegi rek waaw mooy loolu daal maa moom yàgg na te rafet mu leneen ñëw mu rafetal lépp di ko ñaanal jàmm mooy suma frère général bu Malika te yaa xam loo bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barke Seydina Mohamed yàlla yokk lépp ba yëg ko di ko béggewaat séeréer bu naagis su ma nee séeréer bu naagis nag sama caméraman bi nga xamante ne mooy Basirou Diouf Diouf a Njoxobaay waaw sama séeréer bi di la ñaanal jàmm naan la yow les fati les fatigables su ma ne la acca rek nga ne ma acca doo ne acca ba ne ma fuñ jëm doo ma laaj damay ñëw rek nga ne la fii la nga ne ma acca fii la yàlla na sa jaam yàgg di bu baax a baax di baal ñëpp àq surtout nag ñi nga xamante ne ñoom ñoom ñu suivre si wasaare lamb ndax parfois ñu def erreur boo xamante ni ngeen toloole répp déen bégewaat nag bu baax a baax naa leen incha allah mbër ak diine day continuer ni ñu ko def ak général dafa ko champion noonu noonu lañ koy topp ak yéen di ko topp ak yi ba koor gi jeex ñu leen lu doy waar di ko bégewaat nag bu baax a baax mooy waa Italie te su ma nee Italie rek wax dëgg yàlla am naa fa ay mbokk mais dafa am koo xamante ne kenn la ci man mu nekk sama góor sama xarit Chérif si chéri wali ki nga xamante ne moo la tuddee doom kooku desee la a dara Chérif di la félicité waat encore une fois ko koy papay bébé Fatma mu ndaw nag wax dëgg yàlla am euh, beneen nouveau né ñëwaat am doom bu góor di ko ñaanal yàlla rek mu jun mu dund dund fekkee lépp ci barki Seydina Mouhamed chéri wali maa ngi bégg waat bu baax a baax